Makhtar ñu waaw Thiandoum fay naa la maa ngi lay nuyu bu baax waaw di la ziar bu baax di nuyu suñu cameraman bi di nuyu équipe bu Guédiawaye info yëpp waaw di la ziar bu wër kon président ni mu mel Pikine yëpp wuy si ko loo yëg non ñun nii lañu war a def parce que dafa am lu bari lu ñu manqué woon pikin tey léegi waa Pikine yi comprendre nañu damaa njëkkoon a dem ci Tyson 2 tey suñu rakk ji xew la nañu parce que tey fii laa dëkk ak moom parce que man fi la defé lepp moy gox bi té fi goxu lamb la dé nga waw diko ñaanal ndam rek waw Ziza mu gëjë bëré torop la mo moo gëjë bëré 3 ans la toog bëriwul bëri na waaw tamit moom mo taxawone da am lu muy défar ñëwaat na ñëw wo suñu né parana komba, pour bëré may nañ ko combat jox nañ ko combat légui li ci dess dal moy da dem wane fulla ak fayda wan moromu moromam lay bëreel xalé la comme mom Petit ñak ko xam. dafa am preuve yi mu def ci làmb ñu ko nag adversaire la boo boo xamante ne bu ñu respecté la dégg nga Petit Niang adversaire la xam nañ ko man xam naa ko mais na tey rek ñuy ñaan yàlla may ñu ndam. pare ngeen ci côté yëpp daal. pare na côté yëpp lii soo xoolee xam nga ne pare na parce que tey koñam a ñëw gaayinam ñëw ay magam ak ay papam ñoo ñëw taxaw ko. programme bu rëy bi kañ la. le 25 juillet le 25 juillet moom man maay moomee. maa ngi ciy woo waa Pikine yëpp aduna laay woo waaw maa ngi leen ciy woo yéen ngeen ñëw parce que tamit bokk ngeen ci liggéey bi def ngeen ci promotion bi ba mu egg fii maa ngi nuyu ñëpp di jox rendez-vous ñëpp la le 25 juillet waaw ci arène nationale jaajëf. Aziz Gueye bu solution ndeysaan papa ba ngi nii ki ngeen seen papa Giza, ndeysaan lii dafa rafet lii dafa rafet ndeysaan. eh eh mais Ziza papa bi papa bi la gën a gën a. Aziz Gueye ak Gueye auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di leen ñaanal yàlla wér xam nga di sant sama sëriñ sëñ Abdoulahat ambassadeur ak madame jabaram soxnaam madame Seyni Wuli Mbacke sëñ Galas Mbacke sëñ Aziz Abo Cheikh Modou Kara Cheikh Makumba Fall ñu ngi leen di sant bu baax di sant suñu waa koñ bu baax a baax waa Pikine yëpp ñu ngi leen di tey nga ñëw jël petit lan lañ mën a xaar ci yow la kaat incha allah ak sa absence lan la woon ci lamb trois ans nga toog bëri woon waaw trois ans yooyu ma toog dafa am lu ko indi woon quoi mooy lii li nekk sama ginnaaw nii parce que man mënu maa dem sans sama waa koñ ñoom la ma yàlla boolaloon may ànd ak ñoom ma toog gisatuma leen benn diir bu gàtt si laa jëlee woon pause ma toog di defarwaat sama ginnaaw parce que dama yaakaar ne woon yegg naa te yeggu ma man mënu maa dem fenn sans sama waa koñ ñoom la ma yàlla bindal comme tey ji yàlla boole na maa ñoom tey ji ñu àndaat si jàmm maa ngi leen di gën a baaluwaat ak ah parce que ñoom ñoo ma manqué woon quoi wax dëgg yàlla. nga toog 3 ans jël xale bu nekk ci yoon. Petit Niang ku xam na ne dafa doy waar. lan ngay indil Petit Niang le 4 incha allah. waaw Petit sax lu ma toog benn période bi moo ma booleeg moom. mais champion la ñu ngi koy yàlla jàmm parce que dafa jug pour dimbali waajuram man ma jug dimbali sam waajur mais maa ko gën a sonn yaay fopp lu mu wax yëpp dégg naa ko lu mu wax yëpp dégg naa amul solo li ma ko mën a fajee mooy si diggu géew

samay kàddu boo dee seet ni ma doon waxee ak léegi ça fait deux parce que déggoo ma dama yaakaar noonu yegg naa te yegguma Petit Niang mënu maa wax lu may déranger man mënu ma kaa wax damaa bokk si man bëri naa combat spécial maag dumbul pare booy ñaa bëre drapeau Cheikh Amar kon kooku mënu maa jaaxal bis mu ne dama ko bëre man su ma keroog ñu may gisee nii may kët kët ni su demee si stade sama bal laa yor di zongale parce que yàlla laa yaakaar yàlla mooy joxe ndam te yàlla na yàlla jox man naaguma def ma dara maa ngi liggéey maa ngi santaat yàlla bu baax confiance bi dafa ëpp lan moo nekk sa ginnaaw ci wala lan la confiance bu njëkk mooy sama papa taxaw sama yaa ngi may ñaanal loolu rek sant la man sama ñaanu waajur su ma ko amee rek ak sama ñaanu waa koñ rek xam nga du ma tiit dara man su ma gisee sama waa koñ amul lu may ragal parce que xam nga lu tax jamonoy mbapat loon fii lañ doon répété ci koñ bi fii may ànd ak ay ñoom cuuc ay siidu ndaw ay galo ay zaal ay màngal ñooñu laa dem àndal ñuy répété ci koñ bi une ñu may yóbbu fu ne ridis damay dugg ci koñu jàmbur bëre fa génnaat kon non non loolu mënu maa jaaxal parce que su ma naa tourné gis sama waa koñ su ma leen gisee damay mel ni gaynde tey sant bi damay yokkaat fu mu toll nii retour bi nii beneen affaire lay doon ci kàttanu yàlla. tuus bu bees baax bu bees bëri bees lan la ñu war a xaar ci Ziza. waaw bi ñu ngi dañoo ñëw nii rek pour def benn kii nii rek neexal koñ bi mais li ñu war a répété incha allah dinañ ko répété jeudi ci kàttanu yàlla parce que dafa am ñaari mbir am damay ànd ak nit mu ñëw prouvé muy soq suma xarit la te suma nawle la. te suma gain la man mën naa ne Pikine ci ginnaawam laay topp ñun ñëpp ñu topp ci ginnaawam parce que ñun jamono ji génération mujj bi nii ñun ñun ñooy bëggante ñun suñu biir parce que pour mën a fekk ji suñuy grand frère dafa lu ñu koy may parce que tey Malick Ndiaye 37 ngay gis man moo ma jàngal bëre xam nga yaa la kii nii taxaw suma raq la suñu ginnaaw lay topp ñuy ànd dem te champion la tey ji amaana moog Petit Niang mënoon nañ bëre wa moog Dembis wala moo keneen ak keneen parce que sama rakk Jara mi ngi ñëw te dafa am combat yàlla na ko yàlla may ndam c'est que làmb parfois amatul mag man boo ma gisee ma bàyyi lii nii moom laa ko bàyyil moom petit ñaaw comprendre agul comprendre agul ba léegi bu subaa lay comprendre si kàttanu yàlla Ziza lay doon Ziza is back de Pikine il va venir Samno ñu ngi lay ziar tey boo gëstoo woote open press ni sa ginnaaw ni Pape Sarr lan nga avant Pikine lamb maa moom ñoo njëkk a fréquenté su ma ñëwee bidéo ma mu ne ma booy yow da ngaa war a doon champion. daf may maa ngi moom maa ngi moom nañ deux ans yoo xam ne nii la may rombee ndax daf maa mere ndax Pape Sarr ma bëgg ni ma bëggee noonu la bëggee soq bëggee ko Boy Zil bëggee ko keneen ak keneen c'est que nit nag parfois dina wax loo xam ne nii ay erreur lay doon mi faut que ñu di comprendre man tey ji kii nii taxaw Moussa Diop mii lu ne lay def si man mais damay xuloog moom mais tey ji ba ma demee ba sonn damaa demaat parce que nit du rëy man maa dem ba si ñoom ne leen baal leen ma àq parce que aw ma lu dul suñu waa koñ dama koy waxaat mu dégg man Ziza suñu waa koñ laa am te ñoo may dooleel fu mu toll nii man mënu ma fee di dara parce que sama juddu fi la leen fekk sama lépp fi la leen fekk ñoom ñoo ma xamal lépp kon kon daal l'essentiel maa ngi leen di ñaanaat yàlla ñu gën a jàppaat ñu commencé waat à zéro parce que instant dafa guñ dara ku def 18 combats ku def 18 combats am 11 victoires champion mais je dama ko jël premier combat arène. constant a souvent bu ñëwee dañuy manqué repère repères. que côté non ak parce que deux ans Nous, nous, eu ñëpp ñëpp coronavirus sais, ni man xam nga man mais ba ma avec sama copain dañ ma yedd Je lañ ma yedd ma waxtaan ak man man Mais de mais damay xam lu tax may Ben, papa gis nga ko eu damay parce que

mais retour bi non Petit Niang bul yakar ni de si kàttanu yàlla. mobilisation. waaw non wàllu mobilisation bi gars ngi si ngi ngi parce que tamit ay autorité lañ fi nekkal suñu papa Amadou Diarra ñu koy si combat bi xam nga Lamine Gueye mu combat parce que billets dañ ko war a jënd Diop dañ ko war a mu wasaa dafa war a ñëw maam ñoom maam Thierno ak ñoom maam Thierno ay fan ak suñu papa Pam Ndong Pam Ndong tamit suñu papa la parce que samay jarbaat fa la nekk xam nga ñoom ñëpp dañoo war a ñëw parce que wax nañ ko TFM wax nañ ko fu nekk ñoom ñëpp dañoo war a ñëw waaw mais même fukk boobu nga indiwaat indiwaat ñu seetaan la tey nga def indi vivacité ak rapidité mu nekk ñaari version yu bokkul fee nga taxaw ci télé bi nga ne nga dëgg sa bopp di nga ko song di ko koñe di nga ko duma di nga ko daal fii ñu gis ne vivacité ak rapidité ban stratégie ngay doxal ci sa diggante ak sa adversaire waaw xam nga en général dafa ñoo xam ne foog ma sant leen muy almaamili ak bàcc ma samba parce que dañ ma jële fii yóbbu ma ba maris di ma interné fay fa xaalis lu weex tàll boole ma ak ñetti coach ñu may interné di may interné ba combat bi taxee dafa gën a méttiwaat ci man Koundal dama xawoon tooy sax moo tax ma gën a wàññeeku nii c'est-à-dire lamb bu nekk daam ni ñu koy préparé dama bokk ci équipe boo xam ne équipe bu bees la suñu coach ñoom Adama laa sana laay balde xam nga laay bari aw ma seen fay ak mbëri parce que lamb ji daam daam lu ko laaj lamb ji dafa am lu ko laaj dafa laaj vivacité dafa dafa laaj lu ne parce que booy bëreeg nit mu mel ni sekku di wax dafa am nooy tëjee man ba léegi mooy wax parce que benn lamb lañ sekk dem na ba dugg sama 18 sama vie privée xamalu ma dara xamalu ma dara man suma ko xamulul mom xamul man suma ko xamone sax man du ben ko waxal lu ñaaw parce que dafa am ben wax bo xamne buy koy nit di wax muy kep kum doon ne damay bëgg dimbali samay wajur dang koy ñaanal yalla man luma koy ñaanal yalla ndam sago mam maam ndam ci kawam parce que suma rak la tamit quoi en plus parce que rak bi yep moy ben at wala ñaaret kuma xam xamne man xalé la mais duma ko wane man tey ji man may pa bi parce que ma bëre grand combat moo tax fii ku fi bëre ñet yon grand combat ñu na paa nga parce que dañoo gaaw ci lolu mais kay tey damay sante yalla xam nga kima taxol ni boy jil suñu kanam la juddo ni ñukay yoni mais tey ji gis nga mi ngi tolloog man léegi tey bu bëre waatoon ñaari grand combat ñu ne paa nga wala dara te fekk organe demeewul noonu fi nga toog la parce que tey ji lamb boo toogee trois ans ngay soog a ñëwaat bëre ñëpp dañ ko ñaax mais ak ay nitam ñun bàyyiwuñ suñu bopp noonu te yàquñu suñu avenir ñu ngi ci yoon bu baax te dañ koy ñaan yàlla ak pikin bii ñu am ñun pikin rek la ñu am dara ñoomuñu man sama quarante mooy Dominique laa juddoo lool rek mooy sama quarante te te doomu pikin laa toujours kenn ëppalee moo fi dara kenn mënu maa génnee pikin barki Seydina Mohamed kon di ñaan yàlla jàmm ji yàlla na ci yàlla defal ñëpp jàmm parce que ñun jàmm la ñuy woo man Petit Niang du sama noon de dama koy ñaanal yàlla wér gu a ak gudd fan loolu laa koy ñaanal waaw ma woote waa man kay ñi may woo mooy xam nga leen maa ngi woo waa ban jaaxle aada café xamal li ma la waa Pinton waa koñu fee waa Ndaayaan ak Xaadim Diagne Xaadim Diagne ak suñu yaay Yacine Doucouré ñu ngi leen di woo ci combat bu baax parce que ñun amuñu luy leen ak Ndoy Ndoy Ndoy suñu grand amuñu fay caan Alsane Seck Cheikh Fall Wéli Babou Thiandoum ah Yassa Cheikh Omar As Messi amuñu seen fay Papisco sama nijaay ñoom Tamsir gars yi mënu maa tudd tur yëpp parce que tey jii waxaat su ma waxee damay waxaat mais dafa am loo xam ne dama bëgg mu leer suñu gars sunu suñu gars yi ñu dëkkal te ñu nekk Europe da nga xam ne fii lañ nekkoon ci koñ bi dañ koy wax tey jii mu leer. Pambay yónnee na ma xaalis ñoom ñëpp ay ñoom Seguin ñoom Pam Malick saw gaa yëpp jaa ak ñoom Ali Umar Ngala parce que lii mooy ànd dëgg kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax di santaat suñu waa koñ yi di leen masawu coono parce que amuñu lu dul yéen di sant ñëpp di woo tamit sama xarit sama doomu nday Ahmed An ñu koy woo tamit ci combat bi parce que amuñu lu yéen ay say naataange ay say sirat ay say sirat ay say yeewu espoir sama ni yaay tam yow chaque jour ñu sant la tam yaay sama nijaay ñoom grand fay Faye ma kenn di santaat waa koñ bi sama ñoom yaay ñoom ummi waa kër Faye ni ñu ngi leen sant bu baax can can ñu ngi lay woo ci combat yaa ngi ñoom weeli soq soq yow laay waxal ñu ñëw fay ma sama bor sama doomu nday ne plein foog ma koy sant sama copain plein foog ma koy sant sinu ñoom Balla Karfet Badara Thiam aw ma seen fay ak mafia bi waa syndicat yi sama mafia bi aw ma seen fay bay laa aw ma sa fay maa ngi leen sant yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla papa maa ngi lay ñaanal yàlla jàmm di ñaana yàlla yàlla yàlla def jàmm maa ngi jégalu ñëpp di sant tamit taxol di woo di woo taalibe Cheikh Modou Kara yi parce que taxol parce que taalibe Cheikh Modou fii lañ commencé woon taalibe Cheikh Modou Kara yi ñu ngi leen di woo bu baax